auront du mal seen entreprise ñu te créé ils ont mal à célébrer leur leur deuxième anniversaire nga dem ñu ne la soixante quinze pour cent yi auront du mal à célébrer leur cinquième anniversaire donc ku dem ba génn état boobu bay ñafe def ay sacrifice mun ci yor sa njaboot waaye aussi yu créé ci ay emploi kooku lenn rek moo la war état mooy noo koy jàppalee rek ba mbiram gën a dox. surtout loolu bu fekkee ni comme mais créé situation situation de tension. voilà day delloo day loolu de delloo rek gannaaw maanaam effort da ngay def ci ay années dangay gis ci ay quelques heures lépp demat waaw après éternel recommencement lay doon. Mhm. te loolu je pense que mën nañu mën na ñàkk suñu réew parce que quand même réew moo xamante ni bii euh, lépp urgence la. Mhm. koppar boo am war ko mu am foog fa dugal mais mënoo tabax ba pare pour toj pour ñu war reprendre encore mhm. amul njariñ ay benn jour de procès yooyu noonu ñuy xeeb te sénégalais yi ñu ci gën a bëri ay góorgóorlu lañ lan lañ si mën a ñàkk ndax dañuy gis bu fekkee ni procès am na dañuy tëj lépp comme wax nga ko sànq. waaw euh, loolu dëgg la. dañuy tëj lépp donc ça veut am dana am li fonctionnaire peut-être voilà xëy xëy na xëy na voilà boo c'est vrai que li ci gën a regrettable mooy comme dakaar la. Mm-hmm. et que mooy poumon économique Sénégal. Mm-hmm. Dakar bu fonctionné da nga jàpp Sénégal parce que fenn et cetera voilà euh, donc loolu dund nañ ko fii ay yoon yoon euh, mais terul taxul ense ñu jiital ci ay enseignement enseignement yi mooy leen comment faire pour véritablement éviter lu mel nii pour que agent économique mën a fonctionner doxal li ñu war a doxal voilà euh, imaginer fan yi ñu génn nga xam ne boo banque yi bu ñu commencé huit heures wala neuf heures treize heures ñu arrêté demi journée la def ñu si ëpp te banlieue bi sax ñu si ëpp te joon nga am sa chèque parcelle war a dem ba biir Dakar pour si retirer ko rapidement mm. bu ñëwee fii tur bi la une longue également yooyu yëpp perturbation ñoo ko waral voilà am say projets yoo xamante bi parce que man ci même période lancé na appel boobu mm-hmm. ma ne mënoo tabaxam réew presque fukki at ak ñaar presque mm-hmm. ndax bu dee jox nga fukki at ak benn ak juróom-benn rek dama naan presque fukki at ak ñaar mm-hmm. def fi lépp donc waroon nangu mukk digg peut-être porte. xam nga bu ñuy wax ñàkk dañuy sóoraale ñi nga xamante ne dañoo yàq seeni i ak ñoom seen mais ci côté takk der yi lacrymogène yi nga xam ne ñu ngi koy dóor te benn bu ci nekk di jar ay vingt cinq mille francs loolu naka la mën a def euh, ba mën a impacter suñu économie ici. waaw parce que ça veut dire que heure bu heure heure bu nente ne rek eh, ñaxtu am na ci côté boobu population yi génn donc en plus de tout ce que les gens voient mais côté bi nga xam ne dañ ko ignorer mooy loolu. lacrymogène fan yi dafa saf. Euh, euh, yooyu est-ce que gën ko seer 25 euh, 000 voilà donc yooyu te nga ci nga ciy tiire ay ay ay ay centaines voire mm-hmm. waaw nga gis ñoo xam ne dañuy dem ba li ñu yoroon jeex na tàkk. gis nañ fi waaw et cetera waaw donc en fait population yi li ñu soxla daal du loolu. Mm-hmm. nit daal parce que am réew nag il faut le dire. ay caaxaan yoru ko. Mm-hmm. sérieux moo ko yor. justice honnêteté. justice mooy lan ku nekk lim li mu am jox ko ko ñi néew néew leen nga protéger leen parce que loolu mën tax jox am na ci image yoo xamante bi gis nañ ci dernier manifestation yi kenn mënu ko ñaawlu kenn mënu ko lu kenn kenn mënu ko rafetlu euh, dem nga sax léegi li ci gën a garaaw parce que man après ci période bi waxoon naa ko euh, ma ne li ma gën a jaaxal man déjà mooy gouvernement bi dafa nekk am problème de communication surtout communication de crise. maanaam wax ak askan wi. rawatina nag jamono yi ñu toll. parce de crise quand même. am na fii yenn spécialiste ngeen ci mbir boobu mais dama jàpp ne premièrement. dëgg lu ne fang. loolu la wax lu ne fang kenn du ko jeex mais dëgg boo xam ne ñëpp a koy tëgg bët nga ñëw bëgg wax nit ñi leneen. mais jëwriñ bu njëkk bi toog na ak yeneen i ñeent jëwriñ. c'était la catastrophe. ñoom ñu waxtaan waxtaan gu am solo. lu mënoon a ñàkk la. parce que daanaka am solo génn fa. lañ fa français lañ def jël seen